ko mbokk yéen toog na tubbee bi actu point com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te ak tu ci seen xibaaru comme ni ñuy faral ci ànd ak yéen su nekk ba tax na nag tey jii ci xët yu njëkk dañ koo fas yéene ubbee rek ak li nga xamante ni moom moo di kaawu astu soxna kaawu astu soxna tey journal bi daal di xëy ñëwaat ci ak ñun di ñuy yëgal lekk ak juróom-benn say famille ñu jàppoo ñenn ci ñoom daal di nañuy def ab sortie rek di wax naka la mbir mi demee woon kenn ku ñu ñuy duppee Adama Sène mi ngi yëgle ni moom moo ko suivre de très près lépp loo xamante ni waroon na ci moom def na ko waaye malheureusement lenn rek moo nekkoon photo mooy le fait que yeneen document yi nga xamante ni maanaam yeneen données yi marqué wu ko ci dossier bu Astou Sokhna Ndeye Khady Lo moom tamit nag nee na li waral seringal bi ñu doon perfusé Astou Sokhna di déplacé wu saa su nekk mooy que ni malade boobee da doon faral di bërëngu ci lal bi ce si signifie que ni Euh, douleur bi metti woon na ba tax na mënul woon sax euh, tëdd benn place leneen la ñu confirmé euh, mooy ku ñuy wax jàkk madame jàkk nag moom moo daal di rédigé certificat de décès boobee nga xamante ni borom këram daf ko bañoon a signé ndax gis na li nga xamante ni moom la astu soxna doon dund ca hôpital ba lenn rek ko ñoroon jël jabaram te mënu woon a jël jabaram sans pour autant mu daal di signé acte de décès boobee ñëwaatee ci kàddu yi Astou Sokhna mujjee woon a wax laata muy euh, dëddu àdduna kàddu yi nga xamante ni moom metti sénégalais yëpp mooy euh, yaay boo booy upp man ndax xaw ma ba xam euh, suba dina ma fi fekk loolu la wax ba ni mu ñàkkee ba kanam moom ak bébé ba mu ëmb woon ba tax na métti nag yàgg na ci àdduna waaye mbirum santé moom jot nañu daal di ciy taxaw ba tax na nag ba tey ci wàllum santé la ñuy daal di desandi ak yéen kaaw Astou Sokhna boobee daanaka lu nu mel lekk moom moo xewaat ci district sanitaire bu Passy foofee benn waay bu ñu duppee Moustapha Cissé moo def malaise biir këram vers une heure matin euh, naka la ko famille wootee ci hôpital ba ngir ñu daal di indi ambulance suñu daal ni ambulance amu fi actuellement ak ñu débrouillé wa jël benn auto gendarme indi ko ba ca district sanitaire Euh, bu passif ba ba ñu demee foofee fekk fa euh, benn euh, sage-femme moom nag mënu ko woon a prendre en charge ndax xam màccul woon na ci li daloon Moustapha Cissé waaye jox na leen numéro docteur bi ngir ñu daal di koy woo mu ñëw na mu gën a gaawee donte sax moom moo ko njëkk a woo ci téléphone am docteur bi firndeel ko ni nañ ma jël see bu ñu ma jël ma ñëw hôpital daal di koy faj ñu dem ba buntu këram woo ko ba sonn jotuñu ko ñu fëgg buntam ba sonn faalewu leen noonu la def euh, yàgg fa yàgg fa ba finalement daal mu leen di soog a firndeel ni euh, mënul ñëw ndax nekkul woon médecin de garde bés boobee leen beneen médecin ba nga xamante ni jamono jooje oto mi ngi woon ci hôpital ba waaye teguñu ko woon bët benn yoon te nee ñu daanaka sax xamuñu woon ban euh, médecin moo nekkoon ci hôpital ba ndax niñ fa duggee ba niñ fa génnee gisuñu benn médecin boo xamante ni toogoon nga sur place ga wala nga nekkoon sa bureau ñu ci bari ci ñoom peut-être que dañoo génnoon dajaloo ci benn bërëb toog foofee di waxtaan Ah, waaye nag wetuñu benn yoon ndax dañoo daal di gaawante jël Moustapha Cissé yóbbu ko ci benn clinique bu nekk ca diwaanu parce que naka la yegg si rek médecin bi di leen firndeel ni moom Moustapha Cissé daal di nay ñàkk ba kanam mënuñu xam ba xam ci yoon bi la ñàkk ba kanam wala ba xam ci hôpital ba waaye ñoom li du dul tuuma rek mooy ana nan la ay médecin malade bu nekk ci urgence taxawuñ kii naan maa aye gàdd kii naan ayoo ma gàdd tamit la leen ca gën a métti mooy le fait que mu daal di leen di ñàkkloo temps bu bari alors que jamono joojee kii nii di Moustapha Cissé nooyi wam euh, dafa nekkoon loo xamante ni feebar na lool loolu nag dénoncé nañ ko ñu gis ko ci euh, diwaanu Sénégal mu nekk ab vidéo boo xamante ni askan baa ngi koy déglu di ci yëkkati seen i kàddu ba tax na lii mooy firndeel ni rek bu ñu jëlul euh, ay mesures ci wàllum santé ci réewum Sénégal ñi nar a nekk victime dina bari vidéo polémique ci élèves yooyu doon euh, xeex kenn ki di dóor keneen ki di filmer keneen ki nag di euh, subir ay coups yu violent yu jóge woon ci camarade de classe am daal dinay def le tour des réseaux sociaux euh, ñëpp di ko méttilu ndax jàpp nañu daal as gone gu ndaw koo xamante ni quatrième dong lay def bu yoree une telle méchanceté donc jot na nag ñu daal di koy génne école définitivement looloo waral kenn ci seen camarade de classe yi daal di yëkkati téléphone am woote ca diwaanu Dakar. Dakarbuzz di yëgle ni nag cool ni ñu ko gisee ci vidéo bi ak ni mu demee c'est diamétralement opposé dañ doon def cours français ci journée bi vu que ki doon dóoree moom moo nekk seen responsable de classe ki ñu doon dóor nag moo doon perturbé classe bi kenn concentré wul mu daal di koy arrêté ni ko réglal wala mu wax ko prof bi ci la ko nee rek noppiwu ma te doo ma def euh, dara ndax borom ñaari tur nga classe bi yëpp continuer di reetaan euh, moom tamit mu continuer di ko traité de borom ñaari tur looloo metti euh, seen responsable de classe bi ba tax na ba mu génnee rek ñoom ñaar njëkk na ñoo jotee waaye koo yëgal ni nañ dem ci benn bërëb xeex ñu ñaar ku ci mën sa morom rekk ñu daal di jël vidéo bi dugal ko ci li nga xamante ni moom moo di suñu groupe classe bi la mu foogoon nag moo amul waaye moom moomee ñu doon dóor moom moo bëggoon ñu daal di koy filmer mu xeex ak responsable classe bi ndax ci gabari moom moo ko sutoon ëpp ko mu jàpp ne rek kii nii bu ko jàppee dina ko dóor bu muy bëgg a dee contrairement ak la mu yaakaaroon nag seen responsable classe bi daal di koy ëpp doole vidéo boobee la ñu filmé dugal ko ci seen groupe classe bi teg nañ ci ay fan néew way jur bu jigéen ci kiñ doon dóor soo ko gis moom nag moo ne du bàyyi mbir mi mu sedd benn yoon day daal dem porte ji plainte fi lay mbir mi tàmbalee tasaaroo daadiyam lu ci mën ci am daal violence bu nu mel nekkul loo xamante ni eh, dañ ko war a mën a tàcc rawatina ci milieu scolaire vidéo ba képp ku ko gis rek sa yaram daw na ndax kuye ci bërëb yi ñu ko doon dóor ci yaramu eh, gone googee moo doy war eh, soit mu daal di koy dóor ci côté colonne vertébrale bi soit mu daal di ko koy dóor ci kanam ñëpp di ko gis jamono ji nag justice daal na ciy dugg te incha allah fës nañu yéene àtte leen fa ñuy àttee def katu délit yi avocat wu Astou Sokhna nag ñu gën koo xam ci turu maître Ousseynou Gaye nee na nag moom nanguwul benn yoon bi ñu traité euh, dossier bu Astu Soxna ndax commissaire ba nekk ca diwaanu Louga da cee waroon a dugalaale euh, gynéco bi nekkoon foofee ca bés boobee ndax euh, daanaka ba Astu Soxna di ñëw nekkul woon sur place teg ci tamit ba mu dikkee ba gis ko ci situation bi mu nekk dafa daw ba Astu Soxna ñàkkee bakkanam dafa ñëwaat lekk ni ñàkk na bakkanam donc moom tamit war na mën a bokk ci coupable yooyu ñuy juge incha allah bu ñu jugee ci korite gi ba noppi waruñu koo yemale donc song ci ah, sage femme yi ñi ca def ah, bari na donc bu ñu daal di ah, jàpp mbir mi rek daal di koy tënk ci sage femme yi alors que am na ñoo xamante ni ñoom ñoo gën a garaawle muy gynécologue bi ay woon garde bés boobee si ci korité bu ñu nee korité nag ni ginaar ndax moom nañu baaxoo di ko togg chaque année donte sax am na ñoo xamante ni dañuy utiliser yàpp waaye jamono ji ginaar moo nekk la nga xamante ni bul ko laal bul ko jege la tudd cher na cher ba nga xamante ni ñenn ñi sax nee ñu mieux vaut jënd yàpp moom moo leen di taneel ñuy jënd ay ginaar yu tuuti ay 4000 cent dem na sax ñoo xamante ne dañuy exagéré ba di ko jaayee 5000 francs CFA mbir mi Dakar la tàmbalee waaye yamu fi benn yoon ndax ñoo ñu yëgal ne même ca duwaanu Jurbel bu ñu deful nank rek korite gi ah, du ñu gis euh, pépp ginaar boo xamante ni sax day jël 3000 waxatuma laa ko mu yegg 5000 ndax manqué na manqué ba nga xamante ni doy na waar loolu ba tax nañu ci euh, interpellé ñi nga xamante ne ñoom la ci seen xam-xam ci ñu daal di koy euh, saafara ah, diggante ñaari fan yi des ñu daal di korite incha allah ba tey jii ji ñoo ngi yëgal ne sujet Adji Sarr ak am ñeneen ñoo xamante ni dinañ leen ci auditionné ginnaaw bu ñu auditionné Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye patron bu Sweet Beauté ba noppi defal leen li nga xamante ni moom moo di seen confrontation ba ku ci nekk janoo ak sa morom wax médecin bi saytu woon Adji Sarr ca bés boobu at ko ko gunge woon ñoom ñaar ñëpp nag tey jii lañ leen daal di woo ci kanamu juge bi ngir entendre leen ngir que ñu mën a accélérer la cadence ci coow boobee ba def jugement bi une bonne fois pour tout ni ko Ousmane Sonko bëggee waaye tamit comme ni ko Adji Raby Sarr bëggee ngir ñu mën a jàll ci beneen sujet te fàtte loolee. wàllum politique suñu itam réew président Macky Sall annoncé woon na que ni maire yu bari yu bokk ci diwaanu Yewwi Askan bi ñoom nag dinañ ko daal di rejoindre ci partem ci fan yi néew ndax kenn par kenn lay daal di recevoir ca diwaanu pale ba mbir moomee nag daal na ci indi preuve yu leer ndax démb ci alxames bi daal dina recevoir maire meeru Diourbel meeru Diourbel nag ci coalition Yewwi Askan bi la bokkoon daal dinay ñëw rattaché wu ci suñu njiitum de président Macky Sall te wetu ca benn yoon am na ñu bari ñu nga xamante ni dem nañu bëggul ah, ñu daal di koy fësal waaye jamono ji ñuy waxee ak yéen Ousmane Sonko ak i alliés ñoo ngi perdre ñu baree bari ñoo xamante ne ñoo nekkoon seen parti alors que ñoo ngi jum si ah, ci élection législative yi sans pour autant compter waale de parrainage yuy takkoo takku ñu am ci diwaanu dakaar ak yeneen régions yi alors que ba tey législative yi desaat na daanaka ñaari weer donc Benno Bokk Yaakaar li leen euh, daloon euh, ci élection locale yi ñu jugee daal dinañ ci euh, jël seeni mesure laata ñu jub si ci élection yi ñu jëm si lañ koy daanelee nag wàllum làmb la Willy Nicolai doom ci Luc Nicolai yëkkati na ay kàddoom nee na jamono ji nga xamante ni ultimatum Modou Lo daal dinay jeex Ama Baldé bu ko neexee mu daal di dem signé beneen contrat waaye na moytoo jël décision boo xamante ni euh, dina ko gaañ ëllëg ci biir bu waree tasante ak Modou Lo ndax jamono ji euh, jamono récupéré la jamono entraînement la jamono waajal boppam la moom ak i mbokkam ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo téye estafam nañ ko conseillé li nga xamante ni moom mooy gën ci moom euh, te dans les plus brefs délais incha allah dinañu daal di organiser combat Modou Lo ak Ama Baldé ñu amaal ko une bonne fois pour toutes mbokk yi nag ku nuyoo ku nekk di nga tàggoo tey li leen leen indiloon na ci seen xibaar ak tunet jox leen na dëgg daje beneen yoon.